ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سحر والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو صيادة أو نقصان أو تأويل على خير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو سرعة أو سيق لسان aw waqufin bi xayri waqifin aw idgaamin bi xayri mudgamin aw isxaarin bi xayri bayaani aw maddin aw tasdiidin aw xamsatin aw jasmin aw i'raabin bi xayri lmakaani faktub minna ala tamaami walkamaali walmuxasab min kulli ilxaani faxfir lana ya rabbana ya sayidana la tuwaqisna ya mawlana warsuqna fadla man qara wa maadiyan xaqu ma al aadaai walxalbi واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبصارة والأمان wala taxtim lana bi charri wa saqawati wa dalalati wa tuxyaani wa nabina xablal manaaya an nawmi alxaflati walkasalaani aminna min xasaabi alxabri wa min suali almunkar wa nakir wa min akli bidaan wa bayit wujuhana yowma albaasi <coughs> waati riqaabana min anniiraan wa yammin kitaabana wa yasir xisaabana wa saqil miisaanana bilxasanaati wa sabit aqdaamana ala siraati waskinna fi wasati aljinaani wa rasuqnaa jiwaara sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaamu wa akrimna bi liqaayka ya dayaani istajib duaana bi xaqi tawreeti wal injil wa sabuuri wal furqaani atina jamii ma saalnaaka bi sirri wal iclaan wa zidna min fadlika alwaasica bi juudika wa karamika ya raximu ya raxmaan allahuma salli ala sayidina muhammadi saaxibi sariicati walburhaani برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبرك لنا بآيات وسكر الحكيم wa taqabal minna innaka anta samiun alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim allahuma sayyina bi sinati alquran wa akrimna bi karamati alquran wa albisna bi qilati alquran wa aafina min kulli min kulli balaa'i dunya wa asabi alaxirati bi hormati alquran wa adxilna jannata ma alquran warhamna jami ummati sayyidina muhammad bi haqi alquran allahuma ij'al alquran lana fi dunya xarinan wa fil xabri muniisan wa fil qiyaamati safian wa ila siraati nuuran wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna annaari sitran wa xijaaban wa ila alxayrati kulliha dalilan wa imaaman bi fadlika wa juudika wa karamika ya akramal akramin allahuma ahdina bi hidayati alqur'ani wa aafina bi hinaayati alqur'ani wa najjina min anniiraani bi karaamati alqur'ani wa adxilna jannata bi shafaati alqur'ani warfana darajatina bi fadilati alqur'ani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 وبالراء رحمة وبالزاي سلفة وبالسين شناء وبالسين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالتاء طهارة وبالساء سفرا وبالعين حلما وبالغين خناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفة وبالميم موعصة وبالنور نورا وبالواو وصلة وبالهي هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين allahuma balligh sawa ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu ila ruuxi sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaamu wa ila arwaaxi ashaabihi radiallahu anhu ajmain wa ila arwaaxi jamii al anbiyaai wal awliyaai wal mursalin wa ila arwaaxi al aabaaina wa umahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatisatina wa masaixina xaasa wa ila arwaaxi jamii al muminina wal muminat wal muslimat muslimat ahyaai minhum wal amwaati ajmain haama wa ila arwaaxi ashaabi al xayraati min al muminina wal muminat allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin allahuma unsur man nasara din waxsul man xasala almuslimin amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin wa kun mu'izan lana min sharri zi hasadin masarrifan min wa sharri ayni allahu wa sharri sha'rin wa sharri al-khalqi insi ma jinnihi wa sawati summi allahu waftah lana kulla babin kunta fatihahu li salihina min al-khayrati ya allahu wasluk bina nahja rusdin wakfina zallan warul na jinna wa sheytaani allahu sunu boroom ñi ngi lay ñaan ci sa mbaax gi yàlla na nga defal way jiitu jiitu yëpp yërmande ñi fi des yàlla na sunu borom guddal seenu fan te wéral leen te saafara jàngoor yi ak ràgg-ràgg yëpp yàlla na nu sunu borom nangul kaamil bu sell bi nga xam ne jàng nañ ko ci weeru sell yu mu jeex ci fan yu mu ji te defal nu ko ak gudd fan ak wér saafara jàngoro ràpp ràpp yëpp te ñaan Seex Muhammadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te ànd ko wér te may tuut tànk yi nga xam ne ñoo doon jàng alquranul bañ dalee ba léegi yàlla def leen ay mag magi lislaam mag ñu jub mag ñu jaar ci lépp loo xam day doxal alquranul karim ñi leen doon taxaw yàlla na suñu borom barkeel leen te def leen dëgg-dëgg fay ga gën ci yéen yéen ñi nga xam ne yéen ci doon liggéey ci jumaa jeeg ñëpp suñu borom saafara ragg-ragg yi ubbi leen bunti xéewal yëpp ci barkeb sëriñ Tuubaa yàggal fi sunu mag ñu baax ñii lépp ñu jaarale ko ci sëriñ Aafiya mu jaarale ko ci yéen ngeen jot ci ñun am asalaam am arrahma yàlla defal ñu lépp defal ñu koor gu ñu nangu tañ gën a góorlu bu baax te xam ni lii rek mooy mooy mooy yoon yi mooy yoonu sëriñ biit amul lenn lu gën lii mooy jaamu yàlla ak liggéeyal ko te liggéeyal ko mun ta weesu liggéeyal ko ci alxuraanul karim kon nag liggéey bàngoog dañoo wax ni kaamil bi tey lañ ko doon tëj waaye tëjuñu lu baax lu baax ngi doog a tàmbali kaamil bi lañ doon tëj maanaam bi gone yi doon naafila waaye nag lu baax mi ngi doo tàmbali rawatina nag ci fan yii ñu nekk kon nag ñun ñëpp ñu maase gën a góorgóorlu xam ni lu waaye doon def ci lu baax na ko gën a góorgóorlu ci fan yu mujj yii gën cee góorlu bu baax te xam ni kat lépp loo xam ni def nga ko te yàlla ak sëriñ bi rek tax fay ga dana kawe lool te barab bii nañ ko waxee woon na ñëpp gën a góorgóorlu ci baax a baax ñu dundal ko ndax dundal ko mooy li sëriñ bi bëgg te yaakaar naa feeñ na ci weer yu bu baax a baax waaye nag comme koor bu ñëwee dañuy jéng ki nga xam ni mooy yàqal ñëpp ku góorgóorlu dana yomb ci yow waaye nag bu ñu fa jógee nag ñu gën a xam ni nag lépp lu ñu tegoon wàccuñu jaamu yàlla ci ñëw di ko dundal bu baax a baax a baax te bañ a yem rek ci dundal ko ci koor gi waaye ñun ñëpp nañ ci maase rawatina nag soxna yu baax yi nga xam ni macha allah ñoom it seenu taxawaay rafet na lool te gis ngeen rek ki dem bu xale bi jàng wax na ci lu am solo ci mbirum jigéen kon nag yéen jigéen ñi gën leen a góorgóorlu nekk ci ku baax du tee ngeen gën a góorgóorlu ndax gis ngeen luut daraballahu masalan lillazina kafaru imraata nuur ak imraata luut jigéen ñu baax lañu woon waaye kaanata taxta habdayni min xay ni waaye nag xam ngeen ni dara jëriñu leen woon ca mbaax googe lu dul ñoom ñaar dañoo tabbi sawara te ay jigéen lañu woon ñu nekkoon ci ginnaaw ab yonent kon na ngeen gën a lu baax yoon waa ngoog kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla sunu boroom ñu fekkee ko ay ati ati ati ati ati at di xam ni daal wax dëgg yàlla mbégte am na lool ci ndaw ñii nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo doon jàng bis bu set ñaari isib ak nisif waaye nag seenu njàmbaar ña tax ñu jàmbaar mooy ñooy ko def ci ñoom ndax xale bu ndaw bu ñu la jox muy am ñaari at juróom-ñaari at nga mën a jël téereb suñu borom bi dugal ko ci moom ñetti at mu mën a taxaw jàng lu leer nañ ñi loo xam ni macha allah dafa mel ni ci ñu ngi doog a jàkkaarloog ay micro doog a jàkkaarloog ay ay ay ay làmp te mosuñoo raf mosuñoo jaxase mosuñoo génn ci ba sori ci li ñu war a def loolu mel na ni kon liggéey ba sell na baax na te loolu rek mooy li am solo ñun ñëpp daal ñu gën a góorgóorlu te xam ni moom sëriñ bi lim nu bëggal wax na ko te ku bëgg dara maanaam lu mu mën di doon boo bëggee àdduna ju jag da ngay nangoo liggéey soo bëggee alaxira ju jag it nangoo jaamu yàlla rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xuróonun yi yaakaar sëriñ bi wala yaakaar yaakaar ajjana te nanguwoo koo jaamu nanguwoo jaamu yàlla ci sunna su sell si sëriñ Tuubaa nee na loolu ak warula kon nañ góorgóorlu bu baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp